mbokki internet yi dal leen nag jàmm cadre yi nga xamante ni nag ñoo daal di fare ci biir mouvement gëm sa bopp nag daal dinañuy dénoncer benn marché gré à gré koo xamante ni toll na ci deux cent milliards de francs CFA bu PUDC ak matériel médical boo xamante ni nag ci hôpitaux publics yi la waroon daal di nag jariñ ñu yóbbu ko jaay ko ay clinique privée cellule bu cadre gëm sa bopp daal di nag exiger benn enquête boo xam ne dañ ko ci war a def ginnaaw révélation producteur ñaaw ci nag matériel gi ñu ne dañ ko daal di jëlee ci CTE yi ginnaaw Covid bi deuxième vague bi mu daal di wàññeekoo yóbbu ko nag ci fi li nga ni moom moo ci clinique privée daal leen koy jaay lettre ouverte bu président Bougane Gueye Dany jëmle ko ci président de la République Macky Sall di wax ci ab système de corruption boo xamante ni nag dañu ko dal di organiser te ñi ne ci kaw ñoo ko daal di sabab muy jugé ab enquête boo xam ne dañu ko war a te loolee ni mu a xamante ni ñoo daal di nag bokk ci diir boobu nga xamante ni nag wàllum matériel gi ñu daal di jaay frauduleusement jëmle ko nag ci structure privée yi cadre yu gëm sa bopp ne mbir mi dafa war a leer nu mu gën a gaawe rawatina itam marché yi nga xamante ni moo aju ci PUDC toll ci deux cent milliards de francs CFA nga xam ne dañu ko daal di nag octroyé te amul benn appel d'offre ci benn homme d'affaires boo xamante ni nag dafa daal di jege président de la Marième Faye Sall série des cadres bu gëm sa bopp ne ak agent judiciaire de l'État ngir ñu daal di nag révéler li nga xam ne moom mooy chaîne de responsabilité bi ak itam yi nga xam ne yépp ñoo ci war a daal di aju yemuñ ca ñoom ñi cadre Pastef ne ñu daal di nag saisir OFNAC ci itam li nga xamante moo ñeel marché bu PUDC bi toll ci deux cent milliards de francs CFA te itam ñoom laataa ñu ci wax benn déclaration ne ñu nag na nga xamante moom mooy OFNAC daal di autosaisir bu ko deful nag ñoom lépp lu jëm ci organe de contrôle yu état yi nga xam ne dañ ko daal di wóolu ndax am na ci yoo xamante ni nag xalaatuñu faa dem naan ñu fay nag daal di kalaam yi ñenn ñu fare nag ci biir état bi ndax nag boobaa nëpp nëppal la ak i tamit yë yëpp lañ ciy daal di nag def moo tax nag ñoom ñi nag ni jiitaluñ sa kax ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany di président mouvement gëm sa bopp dañ ciy daal di jiital seen bopp ñoom cellule yu cadre yi nga xam ñoo faree ci diwaanu mouvement bi nga xamante ni moom mooy gëm sa bopp ne nag mbir mi dinañu ko leeral ci nu mu gën a gaaw bu nu ko defoo dinañu daal di dem saisir juridiction internationale ngir ñu daal di leeral lu ni mel ndax nag ci nag ni muy daal di passé inaperçu moo tax mbir mi nag nax na nañu mën a daal di octroyer ab marché boo xam ne toll na ci deux cent milliards de francs CFA boo xamante ni amul benn appel d'offre boo xam ne def nañu ko te ne day sunu li nga xamante ni moom mooy suñuy texte ak loi yi